الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مؤيسا مني شياطين الأناس شق على إبليس ميل للسجود تكبرا على الحليم سلوجود يدحه الباقي القديم ذو الخلاف لخلقه لناره بلا خلاف أذله العادل المذل ذو القيام وإنه عن الجنان ذو سيام ترده بكبريس الوحدة لجملة النيران يبكي وحده يعتل بالمالك المعاني ذو المعنوية وذو المعاني نقض ذو القدرة والإرادة والحلم والحياة ما أراده asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñu ngi nuyu bokki taalibe yëpp di dikk rek ci loo xam ne ay kàddu yu ndigal la yu bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadul Mountakha ndigal lii mun a jox ci bis bu màgg bii nga xam ne mooy bisub xasida dafa bëgg mu gën a leer ci bokki taalibe yi ndax yéene ji ak xir gi xam na ko ci kenn ku ci ne te loolu lépp Euh, ndigalal sëñ Tuubaa bu dikkee fa muy leen di toll rek moo ko waral waaye mu bëgg nag indi ci ay leeral yuy tax lépp gën a yéwén ndax Cheikh Abdou Khader Mbacke mu baax ma daan na wax ne ndigalal sëñ Tuubaa laajul tafrit laajul ifraat waruñ caa dolli dara waruñ caa itam woyofal lenn bis bi nag sëriñ bi dafa dafa dafa dafa taamul boppam wax ne ñi nga xam ne seenub liggéey dafa jëmoon ci xasida ci di ko durus ak di ko jàng njàngum yëkkati moo xam kuréel la wala njàngum rajas mu sell loolu la bëggoon ñooñu ñu tànn leen ñu daje taxawe bis bi waaye taalibe yi niñ koy déggee dafa mel ni moom dégg na mu mel ni àggale nañ ko foo xamante ne bëgg na fàttaliwaat ñëpp ñu xam ne nañu déggaat ndigal li te sàmmonteeg moom te xam ne barke bi ak njëriñ li ak tawféex yi nekk ci bis bi fu waay nekk dina la fa fekk waaye liggéey boo koy deflu dangay ngay seet ña ko war a def rek nga defloo leen ko ndax tolluwaayu tolluwaayu jamono tëdd na noo xamante ne ñii mu woo muy ëhlu xasida te loolu moo tax ba mu ma woowee di ma sant ndigal li kam ma yabal ci moom ku ne xam na ko ci xasida ndax wax na ma ne sëñ Xamsatu Mbàkke mii de lu waay di def ci xasida moom nga koy jàppale loolu nag dafay loo xamante ne cir bu mu am ci biir toolub sëñ tubaa mboolem njabootu sëñ tubaa nangul ko ko di ko ñaanal taxawaay boobu gën a yàgg moom nag ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ci liggéey boobu nosu nañu ñooñu tamit soo ci dollee kuréelu xasida yi nga xam ne daara xisbu tarxiya ci biir réew mi yëpp boo xoolee kuréelu xasida yi fi ne ak ñi nga xam ne dañoo bànqaasoo ci xisbu tarxiya def ay kuréel yoo xam ne ñu ngay liggéey seenub liggéey te di ko sellal soo leen boolee rek lim bi ñu soxla ci kuréel yu ko war a dundal ci jumaa jeeg lu ko wër lépp dina mat kon nag loolu na ñu bàyyi ndigal loolu ñooñu mu mel ni euh, ab xare la boo xamante ne ñooñu buñ ca teewee teewaaleen lañ ca murit yépp loolu nag la sëriñ bi bëgg ñëpp xam ko te xam ne kër sëñ Tuubaa yi nekk ci biir réew mi bu fenn des yëg na ne ñëpp seen xel a ngi fi waaye foofee seen xolit mi ngi fi waaye foofee ñu ne nañ ko fa dundal te yam foofee di tàmbalee Ndakaaru ba ci réew mi fu ci ne ba ci Ziguinchor ña fa nekk te am yi amoon yéenay ñëw te bokkut ak ñii ñu jot a wax nañu teewlu foofu def ko fa incha allahu njëriñ ñi nga xam ne dina soqi ko ci bis bii ak teewlu gii ñu seq suñu digganteek sëriñ bi la muy jur ñëpp koy bokk te kenn na du leen ci ëppale loolu buggoon nañu xam ko muy fii muy bitim bitim réew fu fi kër sëñ Tuubaa nekk rek nañ ko doxalee noonu la ca toppaat nag mooy ñu bàyyi xel tolluwaay jamono ak li nga xam ne ay mesures barrières la loolu muy li ñu digle nañ ko sàmm te xam ne euh, kër docteur moom buñ nee euh, nañu takk masque nañu yor gel loolu dafay euh, loo xam ne lu sa pësteef rëy ak lu sa tolluwaay kawe it na nga bàyyi xel ne Cheikh Mamadou Mountakha mi ngi takk masque kon nun nañ sàmmonteeg loolu loolu dana doy sëkk li ci des it mooy bis bi li ci war sëriñ bi la mu jëfoon rek doyoon na lépp lu ca war la mu ca def doyoon na ci lam ñu jox loo xam ne dinañ mën a teral ñay jàng di ko yëkkati ak ñay durus waaye seen xamsatu itam moom jëf na ci jëf joo xam ne soo ko booleeg nun dong yi nga xam ne bi ñu sëñ bi joxee ndigal mën nañu euh, nab nabee ba jëf ci loolee boo ko xoolee rek defar na lépp ci li nga xam ne moom la ñuy tëwoo kon loolu mooy ndigal li biir Touba itam waxuñu waa Touba ñu ñëw dajaloo ci penc mi ndax penc moo jël ci Touba rek sëriñ bi nee na nañ ko dundalee foofu ña foofu it ñu yam foofu ci kilifteefu ña fa ne di njabootu sëñ Tuubaa goo xam ne ñoo sëriñ bi ñoo bokk bëgg ñoo ñoo ko bi ñoo bokk yëg-yëg ñoo sëriñ bi ñoo bokk li ñuy sàmm ak di ko taxaw lii daal mooy li nga xam ne moom la ñu bëggoon ñëpp xam ko euh, te xam ne lépp li ci ëpp njëriñ mooy teew gi rek ndax dama mës a dégg si Abdoul Ahad Mbacké mu tedd mi wax ne alxuraan day day wax ne wu ñu tëj saa boo ko ñëwee bëgg ko ubbi daf la naan la yamassahu illal mutahharuun ku laabul du ma laal mu ne nga nga nga dem daal di laab ñëw bëgg ko laal mu ne laay mosoo ila mu taxaroon nga xam ne kon laabu xol a tax muy wax nee na laabu xol nag bu xasee am dootu la wax loolu dafa la naan la fa iza qara'ta alqur'ana fasta'is billahi min asheytani rajim boo ne a'uzu billahi min asheytani rajim bismillahi rahmani rahim mbuutum alquran daal di ñëw loo bëgg rek fi saasi boo ko fasee daadi koy am loolu it atte boobu moo am ci xasida yi dañu war a laab ci xol dañoo war a teewlu dañoo war a ànd ak yar dañoo war a ànd ak teggin sëñ Moustapha moom sëñ Mahamadan dina ci jottali ay kàddu yoo xam ne nun taalibe yëpp bu ñu teg loolu li sëriñ bi bëgg ci noonu dina ko am ci noonu te loolu rek moo ñu tax a jóg àdduna ak alaxira wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw bu na sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant sëñ Tuubaa ñu ngi nuyu bokki jullit yëpp ak bokki taalibe yëpp ni ko sëriñ Yuusu waxee rek leer na nañ mooy kàddu yi ndigal yu bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadul Mountakha mu waxee ko ni mu ko bëggee sëriñ su jottali ko kon li am solo mooy ñu xam ne murit moom ndigal rek mooy wàllam bu déggee ndigal jëfe gi rek moo ci war a topp sama kàddu nag euh, mooy kàddug sëriñ Xamsatu ndax moom kenn la ci murit yi te it sëñ bi rek lay diglu moom lay jafe te amut ak pëgg amut ak bañ amut xalaat amut lan lu dul bëggu sëñ bi ak ndigalu sëñ bi kon bu sëñ Yuusu jottilee ndigalu sëñ bi rek moom tàbbi na ci biir ak ñépp kon nañu xam ne ndigal li mooy sëñ bi jàngum xasiida la woote ak jànkati xasiida yi kon daal bis ba da ci am solo mooy buñ ci yeggee teewlu gu mat sëkk ak dal ba sëriñ bi ni mu ko bëggee mu amee ko ne ndax ni mu ko bëggee bu ko ne amee loolu njariñul àdduna la ak mbooleem ñi ne ci biir àdduna ñëpp ndax sëriñ bi am li bëgg loolu dana saafara lépp muy tawat ji ñuy wax ak nawet bi ak yeneen ak yeneen ba sëriñ bi xalaatee rek loola maanaam lay faj loola lépp eh, day mel ne ma nga jug jëm ca fexe loolu la fajoo kon moom ñun li ñu ci war mooy nan fexe ba sëñ bi am li mu bëgg rek kon daal loolu moo doon eh, kàddu yi ñu ngi sant tey gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu assamu wal basaru wal kalaamu ahsatuhu ihsaan bihi li qaadirin xayri muridin aalim muxjila kulli di ibain zalim ilayhi hayyun wa samiun wa basir saaqa hadabahu wa ma lahu nafsir nafa laxiina mutakallimun ila xayri jihaati duna raddin zaila inna shayatina alwara qad yaisu minni bi ismati wa kullun abusu saaltu man amara bi sujuudi كوني ساجدا له بجودي وسياتيني الجن وتردهم الى غير ذاتي والى غير ما اختير لي حتى ادخل الجنه التي وعد المتقون امين يا رب العالمين الى الكتاب والحديث صرفا قلبي وقلبي بالمجد yaa